yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la sant ci yàlla bu baax ci ci kenn mag secret baa secret fonk sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek euh, xasida googu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 barra'ani llahu min at-tahawudi wa min tanassuri wa kulli awadi waaye sakartuhu bi diinihi al wa qaadani ilayhi bi istislaami mu commencé war ak ñun ne raafaqani àndante nag man allahu yàlla bi afdalil kalam ànd ko ngën ci wax wasan sa dàq na li omri li xayri omri mu jëm ci furut sama dund alkilaam muy ña nga xamee ne mooy ñañu jam mooy ña feebar loolu noon yi rek la la ci jublu yàlla sun borom muy allahu àndante ne ak man ànd ko ngën ci wax ngën ci wax gi nag mooy alquran ndax sëñ fu mu jëm mi ngi ànd ak alquran rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa asxaabuhu fil baxri fiina adduuru ci saayir ak ci baatin yëpp nga ànd alquran kon àndante nag man ngën ci wax tamit alquran waaye dàq na mu jëm ci furu sama dund mooy ñaaxan mooy kilaam mooy ñu feebar mooy asaqma dañ koy wax asaqma alkilaam waaw kooku mooy alkilaam mooy ñeñu jam mooy ni àndant nag man allahu yàlla bi afdalil kalaam ànd ko ngën ci alquran ànd ko ngën ci wax kon euh, alquran ba antik sëriñ bi yàllaa ko booleeg sëriñ bi wasansaate dàq na li xayro omriya mu jëm ci furu sama dund alkilaam ñeñu jam ña muy noonu yëpp suñu borom dàq na li ji ñi jëm ci feneen fu bokkut ak sama dund mooy yàlla musal na ma ci mooy mucc naa ci ñoom waa jaxtu jublu naa rabbi rabbi sama borom wara bii sama borom waa jaxaa jëmale na kulliyati sama lépp maxbatan ak coxeel lii ñeel ma xaa jaxaa goo xam ne gu tar la waaw goo xam ne gu tar coxeel gu tar nee na bi ma joxee sama lépp yàlla yàlla moom it lépp lu bokk ci man da koo bëgg gu tar <laughs> lépp lu bokk ci man sëñ Tuubaa nee ne da bëgg-bëgg tar goo xam ne dafa jéggi day amut yow kay ah boo jëlee sa lépp jooyal ko yàlla yàlla téye la sa lépp bëgg la waaw ah. inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samaawaati wal ardi haniifan wa maa ana minal mushrikiin Ibrahima waxoon na ko moo tax it boo gisee jooyal googu moo waral yàlla jàpp ko xarit bëgg ko kon boo bëggee yàlla bëgg la bëgg gu tar na nga sa lépp loo xam nga jox ko yàlla na ko yaa moom wane na moomoo dara. sa doom ji bul wax ne sax yaa ko moom ji bul wax ne yaa ko lépp na nga ko askanale jëmee ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala. nu si an nocc na li jox ma nuuru lisaane leerug làmmiñu arab wal kitaab ak alquran asmaana xidmati ci jamono sama liggéey la ahlul kitaab fa ñooñu téere muy ahlul kitaab muy nasaraan yi ak yahud yi yàlla leer gi nekk ci làmmiñu arab nga xam ne moom rek moo ci am solo waxoon yàlla mbir mu ne su fekkoon ne leer gi mën ngaa xam fu mu nekkee boo fi dindee leer gi amutul barke dara nekkutul fa masalan mboolem xeeti julli yi julli ci julli gu ci nekk am na leer boo gindoon leer ba leer gi day am baat bu ne wala day am siru boo xam ne dafa am baat bu ñu koy dëxëñ boo ko dindi woon nag dara nekkatul fa kon mbir mu ne leer moo ci am solo langue wu ne am na leer dégg nga rawatina langue arab nag moo tax mu ne suñu borom summi na leer gi nekk ci làmmiñu arab ak alquran leer gi ci nekk alquran fu ne li muy bëri bu leer gi ni dékkoon moo silaabeer yi ñooyam kese leer gi ci nekk tax jamono yi may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ma nekkee ca biit nasaraan ya jamono ye la yàlla nocci leerug làmmiñu arab ak alquran loolu ba tey lu nu mel nii la waxoon rek ci jawartu nu si alil islaam wa inda qurbati la dal jasaa'i muniru turbati nusa ali nuuru lisaana wal kitaab asamaana xidmati la daa ahlil kitaab noonu la ko wéyee foofu ba tey ani seetal na ma alqudus yàlla muy sellaakoon bi min tanasuri ci nasraan nasraan lu wa min tawaduin ak yahud yahud lu fataaba teeyal na xosri sama jamono lii ñu tuddee di nasaraan nasaraan lu wala ngay yahud yahud lu suñ borom musal na ma ci gis nga turum indi mooy quddusu mooy ku taxul dara set wicc ci musal lépp luy nasaraan nasraan lu wala may yahud waaye yàlla teeyal na sama jamono ba sama jamono yëpp dafa sama xel dafa dal am na ñoo xam ne ay nit ñuul lañ waaye nasaraan nasaraan lu moo leen di gënal Sénégal moom defe naa ne nasaraan ñoo fi ëpp ak ñi koy def ñi koy def def lu do roy roy dàq ak yëhood yëhood lu yëpp sëñ Tuubaa da ko daan bañ waaw da ko doon bañ baax a baax kon nit ki yore det bu ñuul da ko war a tiitaroo ndax del bu ñuul yàgg na ci lislaam buñ la laajee Quran noddal yonent bi xam ngeen ne kooku kenn gënu koo jege te yonent bi daan na gént ci moom ay mbir yoo xam ne eh, da ko na ko ci ñee yoo xam ne war moo ko defal ci aljana muy bilaal nit ku ñuul la Luqmaan gis nga ko alquran tuddee na ko aw saar nit ku ñuul la saydu nga xam ne saxaaba yonent bi moom rek la alquran jaar ci jaar ci turam falamaa qadaa saydun minha wataran gis nga nit ku ñuul la ba tey kon nit ku ñuul am na tiitar ndax alquran indi na ko ay yoon te itam jamono yonent bi ñu bari ay nit ku ñuul la ñoon kon loolu tawféex la kon yore der bu ñuul lañ cey déggee mooy taxutu xeebu yoro der bu ñuul taxutu xeebu waaw sëñ Tuubaa na ko ca Masaalikul Jinaan waaw kon nit ku ne la nga doon te yàlla bind la ca da nga ko war a tiitaroo di ko xam ne yàlla la moo ci bind te yàlla nag dañuy wax lu mu def moo gën bu bindoon nga xonq lu gën ci kon boo gisee nga ñuul lam la def moo gën ci yow mu góog wala si yusawirukum fil arham yi kooku moom na su tibb sa biir yaay la ko defee noonu kon yàlla musal na ma ci nasaraan nasaraan wala yahud yahud lu borom te na samay jamono nasaani simmi na ma arabi yàlla muy buuru minal arbaa bi may jaamu beneen buur bu dul moom waxaade ni te wamat na ma almaahi aji far kéeféer ja minal asbaab bi wëlis may wut beneen sabab bu jaar ci yoon sam loolu mooy axnaytani bika anil arbaabi ca nuuru daare ni waaye wa bi muhammadin anil asbaabi yàlla moo ma doyloo ci moom ba beneen buur beneen buur du ma ko jàpp di ko jaamu arbaabun mutafarriqoona xayrun amillahul wahidul qahaaru benn yàlla rek fi nekk te mooy qahaaru kon yàlla muy buur simmi na ma ci lépp lu du moom maanaam moom rek lay jaamu yonent yi moom bi may jaamu yàlla doylu ci moom dafa dafa tikk sama loxo jàpp ma ne ma kaay nag mënoo jaamu yàlla te mënoo jaar ci man kay kooku mooy waxaadil maahi min man na xëy na alayhi ci man allahu yàlla bil ixlaasi ci sellal wajaadate tabe na ma bil xalaasi ak ak sellal min xedaaw ca noonam ya ca noonam ba yàlla may na ixlaas mbir mu ne ba amul ixlaas yàlla amul ci soxla muy ak sellal lépp looy def sa diggante sa borom comme yàlla dafa sell dañoo bëgg nga di ko sellal moo tax xul walaaw ahad dafa di sellal boppam moom borom bi kon nit ki buy jaamu yàlla na sellal kon yàlla xéewalee na ma may na ma fu ma toll di ko sellal waaye may na ma ak sell ba noppi ba ma nekkee ca noonam ba man na xéewee na alee man allahu yàlla bil ixlaasi ci ak sellal wajaadate tabe na ma bil xalaasi ci ak sell min xedaaw ba ma nekkee fa noonam ba dégg nga malaktuhu moom loo naa ko xatta yët yi mbindum sama loxo xenda xedaa fa noonam ba wakaanata nekkal na lii ñeel ma fihim ca biit noonam ya waxaadate womat na lii jëmee ci man xuddaaxum jubam ga nee na yàlla jox naa ko moom loo naa ko sama mbindum loxo mooy ba ma nekkee ca noon yi moom rek la sama xalima gi sama loxo yi ci moom rek la jëmoon moom rek laa doon bind jëmale ci ñaan ko na ma war a ñaane ak ci sant ko moo tamit nag jox naa ko sama mbindum loxo ba ma nekkee fa noonam ba waaye ba ma nekkee ci seen biir ñoom noon ya yàlla nekkal na ma fa mosul mosul maa woon gannaaw waaw saa bu ne saa bu ma soxlaan dimbal rek ku ma xet rek ma xet lu ma ci biir noonu ya waaye na ma jubam la ma nekk ci biir noonu yëpp njub rek la fa nekkee xuddaahu njubam ko moom yàlla in qaada woomatu na lii jëm ci man la daa ahlil kitaab ba ma nekkee fa ñooñ ahlul kitaab wasaana ni te ñoŋal na ma xan kulli soo in walis lépp lu ñaaw waa tab ak yeddaange nee na njubug yàlla gi dafa wommatu ñëw ci man booba maa ngi ca ahlul kitaab ca nasaraan ya ca tukki ba ca géej gi nasaraan yi ñu ngi may sonal rek waxaw li nasara wal buxuuru tamuuru nee na foofu la njubug yàlla gi wommatoo ñëw ci man ba noppi yàlla proté sama aar ma ba lépp lu ñu yëre doomu aadama wala lu ñaaw loolu duma ma jupp du ma ko jub ndax yàlla musal na ma ci kon loolu lu leer leer la tur si sama pakk xani riddati walis murtat murtat mooy génn ci diine xam nga sëriñ bi liñ ko def ci géej gi rek bu doon keneen dana murtat dana murtat wala benn danañ ko rey ci géej gi waaw noon tur si sama pakk xani riddati walis murtat wal ixraaxi wala lap nga sëriñ bi julli gi mu gi bu doon keneen dana lap bu doon keneen dana lap mooy lan konoon keneen ki sax xelam darul xalaat muy julli ci biir géej gi te sëriñ moom bu muy julli ci géej maanaam moom jàppul woon ne dana julli jàppoon na ne sax moom bu bu jullee mën naa lab da doon julli rek ngeen waxtu waa jot waaye nag ñàkk julli dara jarlu ko ko donte mu lal si jaadaam ci géej gi sax su ko defee mu xam ne da doon julli mu daanu ci biir géej gi suux ñàkk bakkanam moo ko gënaloon waaye gis nga yàlla boo wóoloo rek am yëqin sa digganteeg moom ne loo def rek moom a tax mu xeet la ak ci loo mën a nekk loolu rek moo tax julli géej rek tax julli géej gi moo tax du ko bàkkoo defal ko muy xar baax déedéet dafa jàpp ne ab jaamu yàlla boo xam ne yàllaa ko diggal rek te waxtu jot na ñii di ay jaam comme moom ñi bëgg ko tere te bu jullee ci gaal gi tooñ na leen tooñ na ay morom dégg nga te bu julliwut kasaali ko tooñ na borom mu xam ne nag tooñ yàlla moo gën a rëy lu ne waaw mu bàyyi leen fi seen gaal gi noo ko fi ñukku daal di dem ci boromam subxanahu wa mi nga xam ne moom moom géej gi moom ko moo tax bi mu sëppee der wi euh, julleekaam bi ci géej gi rek yàlla tàggat géej gi ba mënatu lor sëñ Tuubaa ndax géej gi jaam la sëñ bi di jaam léegi saat bi kaw nii habda man yaxfiru son ba wa kaw nii qadimal Mustafa bahru ma yomb kooku mu góog kon tur si sama pakk andiri da walis murtab wal ixraaqi ak lap ci géej gi kaw nii mooy doon gi ma doon gis nga kaw nii mooy doon gi ma doon qadima sahibil buraqi di liggéeykatu borom alburaax nee ne su fekkoon am na benn gàndaay bu tax ba ma nekk ci géej gi li may noonu di sonal sonal murta murtatutuma génnuma ci diini ji wala labuma ci géej ga ba may julli mooy doon gi ma doon xadimal Mustafa rek liggéey bi ma doon liggéeykatu yonent bi kon loolu mooy gala ji gën a mag booy liggéeyal bi lan la waxoon wa man takun bi rasulillahi nusratu in talqu usdu fi ajaami at-talini kuy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo dajoon gaynde lu muy xiif xiif gaynde gi day ñëw soppeeku sukk nooy topp la kon liggéey yonent ci la lépp nekk moo tax doon gi ma doon liggéey doon gi ma doon liggéeykatu borom alburaax alburaax war waay la wu yonent bi sam daan war moom la demoon rañaan asamaani juróom-ñaar ci ndiwulu boromam Seydina Jibril jël si ko nga xam ne yemul ni fas waaye moo ëpp mbaam tuuti comme baax la rek kooku mooy alburaax moo tax doon gi ma doon liggéeykatu borom alburaax ndax alburaax yonent bi saa sam mooy borom moo tax mooy borom alburaax ni nga xam ne xaysoom jibril mooy borom alburax itam ka saalika naka noonu yonent bi ko moom dégg nga madadu sil buraqi wal xaysoomi nawara qurbatiya billu soomi madadu sil buraqi tëbbug borom alburax wal xaysoom ak na nawara leeral na qurbatiya sama tukki bi billu soom ci lu soom maa la yal sam yi nga xam ne moom laa def lu ma nekkee ci tukki bi nee na yónent bi ak jibril may yiñ ma doon jox di ma fekk ci géej gi di ma ko jox nee na moo leeral sama lusoom malaisam yi ma doon def ci tukki bi lusoom malaisam mooy xasida yi doon taalif ci biir tukki bi waaye bi ñu lusoom mooy wëy ni ñuy daanoo daanaka xasida yëpp moom la lu mel ni bi mu ne saaxibil buraaqi waaw ah, bayit bi si topp mu ne lusoomi xaysoomi ixraaqi buraaqi rasuulu xay rasuul dégg nga xam ne bind bi ak bind bi nga xam ne raw yow bu njëkk rek lañ ko laajoon waaye daaneel bii nag moo ko coobare bopp nga xam ne da leen di def ñu tolloo loolu xasir yëpp booy xool moom la ay mafatil bisiri taysiru euh, taysiru asir bëri na ca jaalibatu maraaxi yëpp ba ci madul fasil bi nga xam ne sax ci Tuuba la ko taalifee booy xool njëlbeen gi yëpp dégg nga alhamdulilahi karimi sil minan alitiqaali bi furodin wa sunan gis nga minan sunan loolu mooy lu soo malay sam li ko li leeral lu soo malay sam nag da koo bëgg lu rafet la ci wayta suñu bëgg ko te mu jekk lool moo tax mu ne madadu silburax tëbbug borom alburax mooy maye ma doon jox borom alburax mooy yonent bi wala xaysoom ak xaysoom xaysoom fasu jigéen la jibril moo ko daan war di dimbali si yonent bi ci xare yi ñëwoon na ci xare ba borom nag la jublu muy jibril nee na ñoom ñaar seen tëbb yu ñu ma doon jox muy may na war a ñoo leeral xurbati sama tukki bi bi lusoom ci lusoom male sama yi ma doon def yëpp moo ko leeral mooy tëbb gi ñu doon tëbb nafa ani jëriñ na ma xubul ilaahi bëgg yàlla wa rasul ak yonent bi wa xubbu sil xaysoom ak bëgg borom xay soom nafaan njëriñ goo nafaan njëriñ yoo xam ne kenn xamu nuñ toll nga xam ne juróol na ma xay sool ngeen ci la ma doon laaj nee ne bëgg yàlla ak yonent bi ak jibril moo ma jëriñ njëriñ loo xam ne kenn xamu mu toll nafaan la wax nga xam ne nakiira la nga xam ne jëriñ goog la ma doon laaj yàlla yépp ci la daal di ñëwaale ca sens moo tax nafaan yi na ma xubul ilaay bëgg yàlla wa rasul ak yonent bi wa xubbu si laay soom ak bëgg borom xay soom muy jibril nafaan njëriñ yoo xamee ne kawe na te moo ma indil xayra sol ngeen ci la ma doon laaj bëgg gi ma bëgg yàlla ak yonent bi ak jibril moo ma ko indil akramani teral na ma fil bahri ca biir géej ga ahlu badrin wa ahlu badar saadahumu yàlla na dolli leen albaq yàlla mi fee sax te du faatu al qadri ak yëkkatikuk daraja nee na ba ma nekkee ca biir géej ga ca tukki ba waa ahlu badar ñoom ñëpp fekk nañ ma fa di ma teral moo tax mu ñaanal leen na fekk giñ ma fekk na di ma teral ca tukki ba yàlla mi fa sax te du faatu yàlla na leen dolli waxtu wu ne seen daraja di gën a yëkkatiku di gën a kawe laqa na ni sanama allahu yàlla la daaxe daaw fa noonam ba tawxiid laa ilaha illallahu maanaam baat bi di laa ilaha illallah mooy tawxiid gi ci nekk wéetal yàlla gi ci nekk kennal yàlla gi ci nekk nee ne ba ma nekkee fa noon ya ci géej ga yàlla daf ma doon sax sax mooy di la sax ngay wax nga xam ne doo ko mos a fàtte kooku mooy sax masa boo doon bay bëgg a fàtte sax dañ la koy sax nga mën koo jàppaat moo tax kuy faatu ñu koy sabbaat bi ngeen bañ mu fàtte ko wala xelam génn ca ngir métit ya ak mar wa muy mar ak xiif day nekk ca ak métit yi muy gis ak la muy janoog moo tax mu nekk ba ma nekkee fa noonam ba moom yàlla sanama tawhid laa ilaha illallah mooy laa ilaha illallah tawhid gi ci nekk wéetal yàlla gi ci nekk sanama ko ma di ko wax ci waxtu ne ni sanama allahu yàlla daa xee daaw fa noonam ba mooy noonu yëpp la ci jublu tawxiida mooy wéetal kennal gi nekk moom kennal gi nga xam ne moo nekk ci kalimatu laa ilaha illallah mooy amul benn buur ku ndax boo ko waxee saxal nga ne yàlla rek yàlla waaye ku dul yàlla doonoo yàlla koy mooy kalimatu laa ilaaha illallah baat bu doole wax lépp lu jàmm bi di wax ci diggante ak borom baat bii moo ko gën am doole ci wax sëriñ bi tegaat ci yow yàlla lam yanhuni sakun wala ibtiraa'u xendal xedaa lin qaadati alqaraa'u lam yanhuni jubluhun ma mukk sakun lenn luy sikk sakk am lu may sikk sama digganteeg sama borom wala noonu dama amoon yëqin rek ne niñ ma yóbbee ci géej gi noonu lay dellu seewaat waaw lam yéen di jublu nu mukk sakkul lenn luy sikk sàkk wala tiraay wala duut duut mooy sos fen léeg-léeg sax nga gis koo xam ne jàpp nañ ko xay na ci dëgg lañ ko jàppee waaye nag buñ bu demee buñ koy enquête di ko laaj rek mën naa fen ngir ragal loolu yëpp day am ci mbir kon lam yéen wu ni sakkul wala tiraay te gis nga moo tax mu ne xendal xendaa bëri na koo xam ne saa buñ ko jàppee ci ay bokk ay mbokkam yëpp di yóoxu buñ ko yóbbee wallahi dana wax loo xamee ne la ko wax loo mooy pexam seytaane waaw seytaane ko ko wax loo waaye la muy wax moom ci boppam sax day fen day kàcc lañ koy laaj rek te ña koy laaj dañ ko koo sañ a laaj moo tax kese mu wax loo xamee ne ngir aar bakkanam sooy bakkanam waaye sëñ Tuubaa moom faaliwut loolu donte lislaam sax am na foo xamee ne pour nga sooyee sa bakkan dala koy may donte sax euh, fen lay fen la waaye nag fen la woo xamee ne nekkul sa xol sa rek la loolu lislaam nangu na ko masala nit bëggoon lay rey nga fen ko ba génn ca ngay bëgg a sooy sa bakkan loolu lislaam nan na ko loolu duñ ko tuddee aw fen donte fen la ci saaxir nii fen wi ñaaw te bon mooy widdi yàlla lañ koy tuddee sax mooy ci sa xol waaw ñu jàpp la tuumaal la dara te dëgg lañ la tuumaal te dëgg te dëggoo wóor la moom la nga fen waaye fenoo na ba nga fenee da nga koo saxal sa xol ci seen biir kooku moom kufur la yàlla nañ ci yàlla kon lam yen lu jublul ma sakun lenn luy sikki saak wala iftira wala duut xendal xendaa fa noon ye in xaadati wommatu na liy jëm ci man alxaraa u aji siw ja dégg nga loolu mooy sunna mooy sunna boo tegee xaraa u mooy sunna mooy lu leer nañ mooy ñëw na rek wommatu ñëw ci man xam nga sunna sëñ Tuubaa mii dem ci géej gi daroon jooy lislaam daroon jooy ñoom ñëpp nag dañoo ñëw sëñ Tuubaa dafa yëkk da koo yëkkati moog lislaam ñoom ñëpp ñu ñëw ci sëñ Tuubaa nag sëñ Tuubaa mel ni ko amee ay xal yu muy fa basir bil a bi ajilan wakkun muniran bil islaami anta munir yàlla na nga bégalee ci man jëmmi lislaam moo tax bi ko yàlla defalee ba noppi nag mu ne barke bi nag léegi mi ngi ci man barakatul islaami ñi naa mu ne nax wi aqbalat wa man xalaw ni fil bara yaqajulat ngoo kon inqaara woomatu na lii jëm ci man alqara'u aji siw ji muy lu leer nañ muy yoon wu leer nañ kooku mooy alqara'u mooy loo xam ne lu leer naññ la inqaadati woomatu na lii jëm ci man alqara'u mooy la xam lu leer naññ la te muy sunna nëbb na ma dégg nga allahu yàlla la dal bu xóori fa géej ya waxaade te womata na lii jëmee ci man min fu bàyyi ko fa moom mu xóoral xuuri canu xuurul ay nii nëbb noo moo yàlla suturaal na ko rek la ci jublu maanaam max naa suturaal na ko ba ma nekkee ci géej ya nee na yàlla moo ma doon suturaal waaw dëgg wax na dëgg yàlla ko suturaal ba mu dellu si waat waaye mënoon naa ñaaw de wallaay san ndax ñañ ko njëkkoon a def des nañ fa donte sax wedduñ yàlla am nañu jot weddi yàlla am na ñu ñu rey waaye sëñ Tuubaa rek moo dem dellu si ta bant sax namut ko jëlut bant sax bëgg leen dóor dégg nga mu ko kon yàlla suturaal na ba ma nekkee ca géej ja waaye ca géej ja la ma may canu xuurul ay bi nee ne xuurul ay yëpp kenn ku nekk lañ bind ca dënd ba mooy dañ faa bind turu borom këram ku ko war a takk masala ñu ne diw nangam la diw nangam la waaye nag ca ga dañ faa bind ne képp ku bëgg jigéen wóoru at jigéen wóoru ay ni fan yaxmal bi tax atra bi nay jëfee ndigalug boromam di tuub di dellu ci yàlla te sax ci lislaam loolu la waxu Mouhamed Souleymane gis nga mi ngi melal seen seen melokaan ya yëpp waaye bi ñu ci yeggee dana seen sarte mooy bi tawbatin wa bi islaamin ila malikin xad jaada bil Mustafa kan sil bariyaati mooy waxtu wu ne ku bëgg ci jigéenu wóoru ay da ngay tuubal yàlla te sax ci lislaam di wéyee santaani suñu borom ndax loolu lañ bind seen gannaaw ya boo demoon ba gis leen ñoom ñëpp kenn ku nekk bind nañ ci turu borom këram alaakulaal ak kenn ku nekk. nee na nag seen can yi maanaam nii nit di def ba am ko te mooy topp yàlla laa def bañ jox ma can wóor laay wóor. xadaaniya gi dina ma alxaaji yàlla muy aji gindee ji la daa sawi dalal fa borom réer ña waxaadani te womat na ma illahi jëmee ma ci moom bii ci mbaaxam maal xalal ànd ko mboolem xéewal yu defal na ma ko yàlla mi tudd alxaaji mooy aji gindee ji nee gindi na ma ba ma nekk fi borom réer ña xam nga ñii dañoo réer ku nekk seen biid nag gindeeku am nga sens ndax ñaareel lañ xawoon mooy ku nekk ci ñu réer bu yàggee nga réer ku ne koso sax bari na kuñ fi dugal ku baax lool mu dem fekk ñi naan sàngara def góor jigéen mu génn waale jikko ju bant jooju léeg-léeg tubaab yi génn la léeg-léeg nga génn baaxoon fii ci dem ci réewi tubaab yi ñu yàq la kon jamono ji ne day soppi nit ndax ña ngay niru niru lu ci jamono jooju ñoom ngay niru man tasabaha bi qawmin fa huwa minhum yonentu saa sam ne ne kuy niru niru ay nit da ngay mujj mel ni ñoom masalan boo baaxoon boo bonoon ñëw ci ñu baax yàlla mën na laa soppi boo amee tawféex waaw ngóog kon yàlla ba ma nekkee ci borom riir ña ndax mënoon naa fay riir topp leen mel ni ñoom ndax fa kullu ma xarinin bil maqaarin yaqtadi yonent bi saasam ne kenn ku nekk muy ànd ak moom ngay roy Sëñ Tuubaa ànd ak noon yi juróom-ñaari at lu teg te royul leen loolu xéwalug yàlla waaye yàlla womat na ma jëmee ma ci moom ci mbaaxam kon mbaaxu yàlla moo dugg foofu ndax su fekkee juróom-ñaari at ak lu teg dégg dégg nga yàlla moo koy jox la muy lekk ak la muy naan bu ñu naan bu ñu naan sàngara moom ma ngi naan ci bëbëg yàlla yi ci géejug yàlla yi waaw bu ñu ñoom bu ñuy lekk moom ma ngay naan ci lako ko yàlla di jox ak lako ko yàlla di jox muy lekk li man kasaani moom la muy sol yàlla ko koy jox wa at ni gis nga warawaan ni yëpp ak la muy naan la muy koddaayo la muy lekk yëpp suñu borom ma koy jox kon xadaani alxaadi lada sawit dalal wa qaadani bi ilayhi maxlal wasixtu dëgërlu naa bil haadi ci aji ginde ji alkarimi kay aji tedd almuxni kay aji dolloo ku ko ne fa moom wa ta nekkal na lii ñal ma allahu yàlla wa nix ma est-ce que almuxni moom muy aji doyloo ku ko ne fa moom dëgërlu naa ci kàttanu yàlla mi nga xamee ne mooy haadi mooy aji gindi ku ko neex jëmee ko ci moom waaye mooy tedd gi mooy ku tedd bala nga koo ñaan mu defal la waaye mooy mux nii mooy xool jàmm ko neex rek doy loo ko fa moom ba du soxlaal moromam yàlla moomu nekkal na ma ci waxtu ne lu ma bëgg mu fekk si ma ci est-ce que fexlu ma den lil mati la mooy aji yàlla muy aji doy ko ko neex fa moom comme yàlla defal na ko nag doy loo ko ca moom moo tax na muy tagg yàlla doy loo doy loo gi mu ko doy ci moom faraxtu bégloo naa af dalal waraa ngeen ci mbindeef bi xalami ci sama xalima gi xendasti daadi xurbati fa tartaru sama tumuranke ba wa àll mi ak samay métit kon kon kon sëñ moo ñu xamal ne tukk bi tar na lool métti na lool waaw ba mu ñëwee di ko nettal dañ leen maa ngi leen di yee de yee dafa mëntoon a ñàkk rek tukki bi waaye ku dut man manoo ko man rek maa ko mënoon na ngeen xam ne nag may yi li fi indi du naf laay de naf lay indil ko fi mukk maa ngi leen di yee ne daj naa coono bu ne jànkuwaat naa lu ne bala ma am lii waaw te man bu ñu la yóbboon ci géej nga des fa moo tax nag coono yooyu man kenn maa ko gàlloon sëñ Tuubaa maanaam nattu mbindeef yi la gàlloon yóbbu géej ga natt yi waroon a dal ci kaw mbindeef yëpp moom la war a gàlloon yóbbu ci géej ga deux cent quatre vingt cinq ci ay nattu te nattu wu benn bu ci gën a tuuti wëllu yu atnut ko nattu yonentu la kon bégloo naa ngeen ci mbindeef ci sama xalima ba ma nekkee ca tumaranke ba ca tartar ya ak méttit ya foofu la doon bégloo yonent bi xam nga ku mën a nekk ci xat-xat ak méttit di bégloo yonent bi ah loolu jàmbaar dëkk ko man xanaa kay nit lañ xamoon bu nekkee ci xat-xat mer mer meroog yonent bi meroog borom kese waaye nga nekk ci ay tar sa xalima gii di bégloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam damat niya boole na ma damat niya boole na al aqlaamu xalima yi li saxaaba ca saxaaba ya waxaadat woo mat na liy jëmee ci man mux jëla saxaaba lu gàccal niir yi nee na suñu borom samay xalima da koo boole mu toll ak saxaaba yi muy jëfi saxaaba yi nga xam ne léegi samay xasit yi ci boppam seen daraja ñoo toll ak darajay saxaaba yi loolu lu kawe la kon ki bind xasida gi mooy kan waaye yàlla womatal na ma ci xeeti may loo xam ne nii di ni ñuy sottee ko may ñoo leen gàccal kooku mooy wali xaadat muf jëla saxaaba lam yan xunu jubluun ma ba tey ci géej rek lay fàttaliku di wane yii yëpp maanaam su fekkoon ne keneen lañ yóbbu ko du sëñ Tuubaa mën na laa dal moo tax lam yan xunu jubluun ma irtidaadun dengi dengi xam nga waxoon na la bu yàgg ne murtad tur si xane riddati wal ixraaqi fii nag mu ne lam yu ni jubluwul ma irtidaadun dengi dengi xam nga wax na la tey lam yenu ni sakkun sikk sàkk wala iftiraa waaw te lii yëpp kuñ jàpp yóbbu ci am réew nga wéet fa xëy na man nga koo def lu may fen ak yëpp mën na nekk ca wala sikk sàkk moo tax mu ne lam yenu ni jubluwul ma irtidaadun dengi dengi aw tasanduq wala tasanduq asmaana jumlatil ada jamono mboolem samay noon ax doqoo wër nañ bii ci man arab bu ne ax doqoo mooy ihaatuhoo ahaatoo bihi buñ ne xaddaqa mooy ahaata bihi mooy wër na ko waaw wala buñ ne xaddaqa mooy nit koo xam ne dalaa tiim rek di la xool ah kooku mooy un de xoo kon noonu la ci jublu mu la ñu tuddee déngi-déngi bëgg a def lii bëgg a bàyyi lii ngir ci noon yi rek boo defee lii mucc ci noon di xalaat ay pexe Sëñ Tuubaa defal ko defal ko ci biir noon yi tasanduux nag moom moo gën a yées mooy koo xamee ne dafa wane ne day feeñal lislaam di ko pratiquer te fekk dafa nëbbu ak kéefit ci xolam kooku mooy di gën a bon ala yàlla musal ci moom la suñ tubaab waxoon ne koo xamee ne li gën ci nit ñi mooy ki jàng fiq te jàng tasuuf waaye kenn mëntu jàng fiq ba noppi di bàyyi tasuuf kenn mëntu jàng tasuuf di bàyyi fiq boo boo bàyyi fiq sax moom mooy gën a bon mooy xam-xam bi jàngale wàllu sariya ak li war a jaamu yàlla ak julli ak woor yaak yëpp natt asaka yi aj màkk ya kooku moom boo ko defee boo ko bàyyee bañ koo jàng yow tasoon dux nga da ngaa wane da ngay pratiquer l'islam ba noppi nëbbu ak kufru ci sa biir xol nee na jubluun ma xam nga ba tey lii mënoon na koo dal ci biir noonu ci géej ga boo ko neexoon feeñal fi l'islam te fekk xolam yéeféer kéeféer la ci nëbb moo tax mu ne lam yéen ni jubluun ma it daa doon déngi di feeñal ak lislaam nëbb suma biir xol ak kéefir kooku may tasandux fan mu ne asmaane jublati leen daal ba ma nekkee ci jamono mboolem samay noon ya nga xam ne axandu nañ bii sama jëmm ji ñoom ñëpp ñu ngi ma wër <laughs> ay sëñ na lii ñeel ma asiram mbóot almasoon madda yàlla bi nga xamee ne jaxal def na xatee sama mbind mis la ahli badrin mu mel ni ki tolloog waa ahlu badar fan jaxal ta mu doon ko nee na yàlla jox na ma sirul masoon yàlla bi ma jox sirul masoon moo def sama mbind mu toll ak waa ahlu badar te mu doon xam nga dafa waxoon saxaaba yi te saxaaba yi am na ñu ci ëpp daraja muy ahlu badar ahlu badar bu yonent bi jàllee ahlu badar ñoo kaw te ahlu badar ahlu lasarat al mubasara bil janna yëpp muy juróom benn yi gannaaw Abu Bakrin Omar Usmaan Ali dañ ciy bokk ahlu badar ñoo gën ñoo gën ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu teewoon badar yemut ak ñi teewutoon badar ñi nga xamee ne gannaaw badar lañ dugg ci lislaam ak ñi nga xam ne xare badar fekkoon ñu dugg ci lislaam yemuñ daraja ahlu badar bu yonent bi jàllee ahlu badar ñoo ci féetee kaw te ahlu badar ahlu lasarat al mubasara bil janna yëpp muy juróom benn yi gannaaw Abu Bakrin Omar Ousmane Aliou jàlle dañ ciy bokk ahlu badar ñoo gën ñoo gën ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw moo tax ñu teewoon badar yemut ak ñi teewutoon badar ñi xamee ne gannaaw badar lañ dugg ci lislaam ñi nga ne xare badar fekkoon ñu dugg ci lislaam daraja laa yastawi min qabli al-fathi wa qaatala ulaa'ika ashabu darajatan min allaziina anfaqu min ba'du wa qaatalu wa kullan wa'ada Allaahu al-husnaa terewul ne yàlla nag dig dig na leen aljana waaye yemuñ xam nga yu bëri mënuñu dem aljana waaye yemuñ am na ñoo xamee ne kër yi ca kaw la ñuy dëkk am yoo xam ne yi ci digg ba am yoo xam ne yi ci buntu ba kon yemuñ te ñoom ñëpp pourtant aljana rek lañ jëm de waaye aljana yi nag dañoo gën a neexante kon mu góob kon yàlla jox na ma sirul masoon yàlla mi ma jox surul mosoon moo def suma mbind mu tolloog waa ahlu badar nga xam ne jëfi waa badar ña nga xam ne ñooñu yàlla yër na seen xol yi na même sax buñ doon def bakar yàlla du ko bind ci wax yàlla jégal na leen waaw ah, dootu leen bindali bàkkaar mukk lépp luñ mën a def ci kaw suuf rek aljana la jëm ñooñu su fekkee ñu ne xasida yi moo tolloog ñoom ah kon keemaan la xasida yi ñoo tolloog moom kon xasida kenn xamul lu mu dox waaw ah, li may faral di wax mooy lu kenn xamul naabat wuutu na kitaabati sama mbind xanis silaahi walis ngàndaay yi wal jawalaani ak woy wër ña li sawi salaahi jëm ci borom mbaax ña nee ne sama mbind wuutu na di téye ngàndaay xam nga ngàndaay boo gisee mag ñi dañ ko fonkoon rek dañ ko fontoon dañ ko fonkoon muy ay armo fu jëm rek yu yóbbaale ay armo wala masalan fu ñu dégg ne ku baaxang fa sëriñang fa nangamang fa ñu sol seeni dàll su ko defee nag dem ci kooku di sàkku ci moom ñaan mu jox leen nang wala ñu dem fa mu leen di tarbiyu ay at yu bari loolu nag dafa métti suñ tubaa nag xasida yi ñoom dafa ñëw génne coono bu nit ñi di jànkuwante yëpp xasida dafa ñëw di ci génne di leen ci génne nga xam ne tey sën yi rek ngay toog di jàng xasida yàlla di la musal sa noonu saaxir yu baatin bu doo tukki benn ngànnaay waaw waaw te adduna yëpp dan la fekk si waaye doo dem ci bo ñu baax ñi di sàkku ñoom ñaan waaye jàng gi ngay jàng xasida rek yaa ngi ñaanal sa bopp bépp xeeti ñaan bi ñuy ñaan yépp yiw yaa ngi koy mën a am te doo jog dem fenn léeg-léeg sax nga gis ne xam ne jàngkatu xasida la waaye ñun defe ne ñu baax lañ ay sëriñ la ñuy ñëw ci ñoom di sàkku ci ñoom ñaan kon gis nga ko kon naabat kitaabati ani silaahi mais wal jawlaan li sawi salaahi naabat wuutu na boo diggee wuutu mooy loo xam ne nag léegi dañ la ko woyofalal di ko daan def nangam waaye lii nag moo ko wuutu ba du ko def tey masalan boo bëggoon a takk sa tànk dem ba gànnaar nga dégg ab sëriñ boo xam ne ku mën a ñaan la ku nangam la yu mel noonu wala nga bëgg a dem lu mel ni itali xeeti réew yëpp nga bëgg fay dem ngir la nga fa dégg rek lu baax la wala sëriñ bu baax la nga ngay sàkku ñaan kooku nag dañ la ko woyefal na xasida yi ci boppam ñoom man nañ ko kon naabat mooy wuutu na kitaabati sama mbind xani silaahi wala si ngàddaay ya wala jawalaani ak woy wër ña li sawi silaahi jëm ci borom baax ña boo taxoo sama mbind daal jarutul ngay dem ci ñu baax ñi di sàkku ñoom dara ndax lépp mi ngi ci mbind mi jarutul gaawul ngàndaay ndax xasida yi doy na armu xaddaa jubal na xayaat yi sama dund man yàlla mi nga xam ne yuquuru dana womat dégg nga lii ñeel ma aljinaan aljanaya wa jussati ak sama jëmm ab xaa saxal na ko fi muy des wa nawaraata leeral na aljanaan xol ba yàlla jubal na sama dund yàlla mi nga xam ne heure bu ne sama lépp da koy womat jëmee ko aljana ya <laughs> aljana Sëñ Tuubaa mooy aljana moom dundam ci na rek ci la jàkkaarloo aljana ci la ko yàlla wan aljana ci la la war a xew lépp suñu borom wan ko ko ndax moo nee na la kon yàlla jubal na sama dund yàlla moo mi jubal sama dund mooy ki womat ba kere may tabal aljana sama jëm ak sama lépp lay womat tàbbal leen aljana te moo fi may ma di fi sax ba faw te moo leeral sama xol xadaa jubal na xayaati sama dund man yàlla mi nga xam ne yuquuru dana womat liy jëmee ci man aljinaan aljana ya léegi aljana nag léegi yàlla moo ma koy indil waaye duma ko fekk ji <laughs> xam nga kooku mooy kii dund aljana ci na rek boo gisati ak sama jëmm nga ne jëmmam ci boppam léegi yàlla da koy indil aljana mu jàkkaarloo ko dégg nga boo gisati ak sama jëmm ab saxal na ko muy des waaye wana wara leeral na moom yàlla aljanaan xol ba dégg nga rabbi na ma sell ak buur bi rabbil ansati moom muy borom tedd ga amaay sifoon walis lépp loo xam ne ko melal ci ay doom ak i caaju wasalaamun jàmm àll mursalin yàlla nekk ci mboolem ko yàlla mosu yónni walhamdu sax dàkk tarafet aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin moom muy borom bindéef bi mu ne tudd naa sell ak yàlla muy sama borom walis lépp luñ koy melal i caaju jàmm yàlla nekk ci mboolem ko yàlla mosu yónni meloo sax dàkk la ñeel yàlla bi bokk kon xasida googu incha li yastabsiruuna bi nixmatin min allahi wa fadlin minhu su ko defee ñu bàyyi ci xel kon foofu la yem buñ jël siwaatee tàmbali ak geneen xasida wa axiru daxwaana an ilhamdulillahi rabbil alamin